waa réew mi amiin ci xaj ak seen amiin ci ku bokk fii ak ku bokk fële ndax kenn mënul am jàmm say dëkkandoo ñàkk ko yàlla yàlla may ñu ngër gu yaram may ñu déggoo ci xol yi yàlla yërëmal ñu yàlla yërëm ñu suñu way daw yi nag rawatina nag suñu mbokk yi nga xam ne faat nañ leen ci lu dul dëgg ci kaw rek ñoo ngi doon réclamer seeni droit te noonu doon ay xale nag di xeex ngir dëgg gis nga sax mu fekkoon ñu nekk ci sortul gaf yi hmm. waaye yaa ngi dégg fi yàlla ne nahnu naqussu alayka nabahum bilhaq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ay ndaw yàgg taxaw ngir bañ lu dul dëgg ak ngir bugg a saxal dëgg te di xeex yàgg na am te benn exemple ngi ci nii ba yàlla feye ko ni lañ ko feye ci ni mu leen aaree kon yàlla ñu yàlla boole aar ñun ñépp aar réew mi musal ñu ci seytaane ci pexe musal ñu ci pexe noonu mus lii mooy suñu musluwaay ñun demuñu ci lijjantiwuñu leneen lu dul essayer fu ñu nekk di làpp ci gannaaw yàlla ndax kuy am doole rek yàlla la ko ku am pexe rek yàlla la ko moo tax li ko tënk ci ñaan mooy audu billahi min kaydil kaahidin wa makril maakirin wa sihri saahirin wa baghil baaghin wa tughaatil murtadin wa junuudi iblisi ajmain innahu min suleyman wa innahu bismillahi rahmani rahim di musu yàlla saa su nekk ci borom pexe yi ak borom jabar yi ak eh, borom faskat yi ak lépp loo xam ne dafa bokk ci iblis ak ay armeem ndax moom dafa am ay armée yàlla nañu yàlla musal seen pexe ñoom ñëpp te musal ci réew mi musal ci mbooleen seen seen yi nga xam ne dëgg ñoom la leen